sama doom dama la yónni ca daara ja ngir nga am ndam sama doom yow am yor ngalaay bul tas yaakaar sama doom

cay kolba na nga raw ca kalas ba ña nga warmal jàngalekat ya nga lawaay bul tas yaakaar bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah subhaanaka allahumma la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alhakim allahumma allimna ma yanfacuna wanfacna bima allamtana wa zidna ilma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli bokk yi nuy seetaan ci seen chaîne bi di Daara Koki TV wala Daara ji TV wala ngeen di topp ci Koki FM seen rajo bi di Koki FM 88 94 point 9 ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen tatagal di leen dalal ci seen émission bi ngeen tàmm ànd ak nun muy jàng sa diine euh, di ñaan waxtu yi ngeen di jël di topp émission bi yàlla na ko yàlla barkeel waaye yàlla na doon njariñ ñeel nu nun ñëpp fi dunya wal axira comme niñ ko miine woon tàmbali woon nañu suñu téere boobu di al usulu thalatha muy téere boobu nga xam ne ci mbirum wàllu tawxiid lay wax wéetal yàlla nan la jaam bi di def ba am tawxiid bu wér nan la jaam bi di def ba jox yàlla àq jim ko ameel jox yonentam bi àq jim ko ameel waaye nan la jaam bi di def ba dund diineem ni mu ko war a dunde ci anam nga yàlla gërëm nga xam ne li ci jiitu mooy mu xam ko waaye itam la ca war a topp ca xam googee mooy gëm ko jëfe ko loolu yépp téere bii daf ñu ciy dimbale ci ñu xam sunu boroom mooy kan xam liñ ko ameel mooy lan xam sunu bu mooy kan xam liñ ko ameel mooy lan xam diiney lislaam ji mooy lan ak nan lañ ko war a dunde kon téere la bu am solo tàmbali woon nañ ko ba di ñëw ci fi borom téere bi di indee ñetti eh, fondamento yooyu ma tudd léegi nga xam ni eh, mooy li jaam bi war a xam waaye war koo yittewoo te mooy li tax téere bi jóg jóg moo tax mu ne la fa ida qiila laka buñ la waxee buñ la bu la nit laajoon ni la mal usulu salaasatu yan ñooy ñetti ponk ñetti pilier ñetti keno yi nga xam ne nii ñetti mbir yi nga xam ne cosaan la yoo xam ne nii allati yi nga xam ne yajibu alal insaani daa war ci nit ku ne daa war ci nit ku ne maarifatuha mu xam ko ñetti mbir yi nga xam ne ni ay cosaan lañ yu mënta ñàkk yoo xam ne lépp ca lay dellu yoo xam ne nii nit ki daf ko war a xam jullit bi daf ko war a xam bu la laajoon ne yooyu yan la faqul waxal ne tontul lii neel mooy maarifatul abdi jaam bi xam rabbahu boroomam loolu de loolu de cosaan la ponk la euh, keno la loo xam ne ni moom mënta ñàkk nit ki moom ku ne war naa xam kan moo ko fi indi fii ci kaw suuf la nekk lu ko fi indi ak lu ko fi indi loolu moom war na koo xam kon jaam bi xam maarifatul abdi jaam bi xam rabbahu boroomam xam kan mooy boroomam loolu moom jaam bu ne war na koo xam loolu benn ponk la wa diinahu ak diineem jii mooy lan diiney lislaam mooy lan moom kenn ku nekk am nga diine kenn ku ne am nga diina moo tax boo déggee ñu naan laa diini mooy ko amul diine ko amul diine amul kenn ku ne la nga nekk di ca kër kër di ca di ca di ca wuta jege sa borom loola nga def muy diina moo xam mu jag moo xam mu ñàkk jag nag waaye loolaay sa diine kon nit ki war naa xam moom diineem li nga xam ne moo war a doon diineem mooy lan ndax bu ko xamee ci lay xamee ba xam moom lim jàpp mooy lim war a jàpp wala lim war a jàpp jàpp ko bu ko xamul mën naa jàpp loo xam ne nii diine la koy jàppee di ca góorgóorlu ca sonn lool daa jàppul fa mu war a jàpp loolu ngaañ la koy jural mu coono boo xam ne nii boroom dana sonn ba noppi wëlbatiku jural loraange juddoo ca aamilatun naasiba waaw loolu ci yàlla musal kon xam gu jaam bi war a xam diineem mooy lan diine ji yàlla gërëm tànnal ko ko nekko di lii laa la jox comme diine xam da ko war a xam kon loolu beneen la ñaareel baa ngi noonu ñett yii mu la laaj ne la mooy lan benn bi mooy jaam bi na xam boroomam jaam bi na xam diineem wa nabiyahu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam jaam bi itam daa war a xam nabiyahu ab yonentam yonentam bii di muhammad sallallahu alayhi wa sallam na ko yàlla dolli xéewal te dolli ko mucc da ko war a xam jullit bu ne war naa xam kan mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax bu fekkente ne dañ laa yónnee ndaw ndaw liñ dox yónnent bi dox yéen wa gën a rafet wa gën a mat liñ ko yónni woon lépp mu jox la ko te xamoo ki yónni ci yow kan la xamoo ki ñu yónni ci yow kan la te xam ko bokk ci li mënta ñàkk ngir nga jariñoo loolu mu la indil ah loolu dana doy waar te lim la indil mooy xamal la ñaar yu yi xamal la sa diine mooy lan noo koy dunde xamal la sa boroom mooy kan noo koy joxe ay àqam kii de moo la moo la ko indil moo la ko xamal boo xamul kii ki indi loolu ah dana doy waar de kon xam bu gu bi war a xam kan mooy yonentam muhammad sallallahu alayhi wa sallama loolu ab keno la boo xam ne ni mënta ñàkk yooyu ñooy yi ñu tuddee al usulu thalathatu mooy ñetti euh, fondement ñetti ponk ñetti keno yi nga xam ne nii moom mënta ñàkk ci jaam bu nekk jullit bu nekk mu yittewoo ko mu dellu siwaat nag di la ko toppal benn par benn al aslul awwal keno bu jëkk bi wala cosaan lu jëkk li wala ponk bu jëkk bi fa ida qiila bu ñu la waxee ni la bi ma arafta ah, man rabbuka kuy sa boroom kuy sa boroom ah ku ne war naa xam kuy boroomam xëy na koo laaj dana la la yàllaay sama boroom loolu moom ñépp dëppoo nañ ci waaye ndax ni nga jàppee yàlla kan mooy yàlla kan mooy yàlla lu mu def ba doon sa boroom waaw ndax euh, wax ji rek doy na kon bu ñu la laajee kuy sa boroom faqul waxal ni rabbi allah sama boroom mooy yàlla allah la tudd allahu rabbi rabbi sama boroom allahu mooy yàlla alladi yàlla moom yi nga xam ne rabbaani mooma moom ko jëfandikoo rabb moom la moomeel goo xam ne ni ki moom dafa boole li mu moom moo ko fi indi waaye moo koy saytu li mu moom da ko moom ci anam goo xam ne ni moo ko fi indi moo ko fi def moom moo ko fi def yemu ca waaye ay mbiram yépp ci loxoom la nekk loolu mooy rab léeg mën ngaa defar sa kër ba noppi yaa moom kër gi waaye kër gi nekkul ci say loxo mën ngaa jënd saw fas wala sa saret yaa ko jënd yaa ko moom waaye nekkul ci say loxo ci loxo yi keneen la nekk kenn keneen a koy toppatoo sunu boroom subhaanahu wa taala nag ni mu ñu moome daf ñoo moom moomeel goo xam ne nii mooy ki ñu fi indi moo ñu moo ñu moo ñu fi indi yemu ca waaye sunuy mbir lépp ci loxoom la nekk mooy ki koy saytu mooy ki koy toppatoo kooku mooy rab mooy rabbaani mooy ki ma moom wa rabbaa mooy ki moom di saytu di toppatoo yor mbiri jamii al aalamiina mboole mbindaafoon fon yépp nag moo leen di toppatoo moo leen moom moo leen di toppatoo moo leen di saytu bi ni'amihi ci ay xéewalam yu bari yoo xam ne nii ñoom ñëpp dañoo lap ci biir xéewalam yooyu wa huwa te yàlla moom i maabuudi moom dong mooy ki may jaamu man moom dong laay jaamu wa huwa moom dong maabuudi mooy ki may jaamu kon awma keneen ku may jaamu danañ xam lan mooy jaamu ndax buñ ne yàlla rek laay jaamu war na ñoo xam lan mooy ak jaamu ndax mën nañ koo wax fekk noonu lañ ko bëgg a defee bëgg ñu jaamu leneen lu dul yàlla waaye ñi ngi defal leneen di ko jagleel keneen wala leneen loo xam ne nii ndekete lii ak jaamu la dañoo xamul ne ak jaamu la moo tax ñu di ko jox keneen waaye bu ñu xamul ne ak jaamu la yàlla rek lañ koy jox ndax dañu xam ne yàllaa ko moom kon war na nañoo xam lan mooy ak jaamu danañ ca ñëw insha allah taala laysa li amuma maabudun keneen ku may jaamu siwaahu ku dul moom awma keneen ku may jaamu ku dul yàlla moom yi nga xam ne mooma moom moo moom ku dul man moo lu dul man waaw lan mooy tegtal ci ne yàlla moom mooy mooy boroom moom rekk ay boroom lan mooy tegtal ci ne yàlla moom yi moo moom mbindaafoon yépp moo àdduna si yépp moom rekk lañ war a jaamu lu ci tegtal wa daliilu liy tegtal qawluhu taala mooy wax ji yàlla waxal boppam ne alhamdu mboolem cant alhamdu cant la goo xam ne ni day ànd ak màggal ki ngay sant cant la xeetu cant la woo wax bokkut ak ashukru alhamdu yàlla dong lañ koy defal alxamdu yàlla rekk lañ koy defal ashukru nag nit mën na laa defal dara nga ne ko sukran la ka jërëjëf jërëjëf jaajëfal nit mën nga koo def ki la defal dara nga ne ko nga jaajëfal ko waaye cant goo xam ne nii day ànd ak màggal ki ñuy sant kooku yàllaa ko jagoo loolu mooy alhamdu cant lay doon goo xam ne day ànd ak kaweel day ànd ak yëkkati day ànd ak màggal day ànd ak sopp ki nga xam ne nii moom lañ jëmale ci moom cant googu yàlla nag ni cant googu yi moom lillaahi yàlla dong ko moom moom dong ko jagoo keneen am waru ko am kon yàlla dong lañ koy defal alhamdu mboolem cant lillaahi ñeel na yàlla yàlla rek la ñeel yàlla man yàlla moom mii nag nga xam ne moom lañ war a sant moomoom cant rabbil aalamiina mooy borom bindaafoon yépp mooy borom bindaafoon yépp bindaafoon mooy lan nee na wa kullu man siwa llaahi képp ku dul yàlla rek aalamun ci mbir mbindaafoon yi nga bokk xamal ne mbindaafoon nga kon niñ ko waxee woon ku bind ak ku ñu bind fi nekk ki bind moom kenn la kookoy yàlla leneen lu dul moom keneen ku dul moom dañ laa bind te kooki yàlla moom yi moo la bind moo tax mu ne wa kullu man siwa llaahi képp ku dul yàlla wala lépp lu dul yàlla moom yi aalamun mbindaa la mbindaa la wa ana man waaxidun kenn laa min dalika al aalam ci mbindaa fon yi kenn laa ci kon comme kenn laa ci biir ñoo ñu yàlla bind nag kenn laa ci biir mbindaafon yooyu damay nangu ne koo kii ma bind mooy sama boroom damay nangu ne sama boroom moom yi mooy ki may jaamu gis nga yëf yi ni mu war a ànde waaw waa léegi nag fa ida qiila laka ñu la waxee laaj la ni la bi ma arafta rabbaka ah ci lan nga sukkandiku ba xam sa boroom xam nga xam sa boroom moom mënta ñàkk waxoon nañ ko ni la fondamental la boo xam ne ni euh, nit ki jaam bi xam kan mooy boroomam loolu lu lu fondamental la lu mënta ñàkk la jaam bi war naa xam kan mooy boroomam waaw bu ñu la laajee ne la waaw ci lan nga ci lan nga jaare ci lan nga sukkandiku ba xam sa boroom suñu borom daa xamle boppam yàlla daa xamle boppam bu ñu ko bëggee xam amul fu ñu ko mën a jaar fu dul fim fi mu xamlee boppam fi ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam xamlee foofu la ñu jaare ngir xam yàlla leneen lu ñu tudde xam yàlla réere ko la leneen lu ñu tudde xam yàlla lu dul ni yàlla xamlee boppam ni yonent bi yàlla bi xamlee yàlla leneen leneen lu ñu fi indi rek xamal ne réere yàlla la ak réeral nit ki ci yàlla yàlla nu ci yàlla musal kon bu ñu la laajee ni la loo xamee sa borom ci lan nga sukkandiku ba xam sa boroom ci lan nga jaare ba xam sa borom faqul neel bi aayaatihi ci taanam yi nga xam ne nii da ko fee indi da ko fee wàccee dañ ko jox ngir ñu mën cee sukkandiku ba xam ne ki def lii kookoo mën a doon yàlla ay kéemtaan yu rëy yoo xam ne yàlla amal na ko yàlla kéemtaan yooyu mu amal amalu ko lu dul ngir dëggal yàllaam gi ngir ñun ñu sukkandiku ci xame ci kuy yàlla kon bi aayaatihi ci kéemtaanam yi wa maxluqaatihi ak mbindaafanam yi mbind muy man muy yow muy yeneen mbindaafan yi nga xam ne ni ñu ngi jàkkaarloog ñoom di leen romb bis bu nekk guddeeg bëccëg yenn yi ay kéemtaan la kéemtaan yooyu ci ci mbindaafan yi lañ bokk yeneen yi di mbindaafoon yoo xam ne ni boo ca xoolee xam ne kii moo bind moo bind moo moom àdduna bi xam ne kii moom moom lépp luñ bind mooy ki ko bind mooy ki ko moom xam ne kii moom rekk mooy ki yeyoo ñu jaamu ko wa min bokk na ci kéemtaanam yi nag nga xam ne ni ku ci sukkandiku ku ci dimbandiku xam yàlla al laylu guddi wan nahaaru ak bëccëg kéemtaan ñaari kéemtaan yu rëy lañ guddeeg bëccëg mbokk yi xoolal guddi nga xam ni dañuy nekk ci bëccëg muy naaj di tàng di naaj di tàng ñu jekki-jekki di leer ñu jekki-jekki rek loola lépp naajoo jóge fa tàngooru naaju tàngoo jóge fa leer googa jóge fa ñu jekki-jekki nekk ci lëndam ci guddi nekk ci guddi mu lëndëm kenn ku nekk dem nekk ci boppam kenn ku ne nekk ci boppam muy lëndëm ñu nekk ci biir lëndëm googu bi muy leer ci bëccëg gi foo xool ba fa sa bët yam ngay gis li fi nekk ba fa sa bët yam foo sànni sa bët rek muy dem lu sore sore ngay gis sa kanam ndeyjoor càmmoñ sa gannaaw boo geesoo loo xam boo téenee ci kaw di xool di gis lu sore sore lu ne nga gis ko nga dem ba jamono bu jege lool boo bëggee gis fi nga toog dong dangay taal da ngay taal da ngay taal da ngay jëfandikoo luy tàgg ab lumière luy leeral nga xam ne leer gi fi nekkoon ak lëndëm ñëw na folli ko jële ko fi ñu nekk ci lëndëm googu nekk ci lëndëm googu nekk ci lëndëm googu jékki-jékki rek leer ga ñëw jële fi lëndam googu ñëw toog palaasam ñu dëkke ko ñoom ñaar rek bëccëg gi bu jotee nga jóg doxi say soxla loo bëgg a dox dox ko ci bëccëg gi nga gis bu li ko war a folli bu jege see rek ku ne dem jege ji fa mu war a fanaan xam ni ah, leer gi ma amoon bëccëg gi ma amoon ci temps bu yaatu bi mu ngi bëgg a folli ko mu ngi fi bëgg a jóge kon naa dem fa nga xam ne nii fa mën a dalloo ba ëllëgati nag guddi gi daal di ñëw nga mën a dal mën a tëdd nelaw mën a noppalu ba bu bëccëg gi ñëwaatee nga mën a defaat loo xam ne ni luy jur njariñ la xoolal ñaar yooyu mbokk yi xoolal ñaari ñaari kéemtaan yu màgg yooyu te doo yëg doo da ngay jékki-jékki rek lii dem lii dikk lii dikk waaye doo dégg bur doo doo gis kuy liggéey doo def dara doo gis lenn da ngay jékki-jékki rek yëg ne bëccëg gaa ngi tàggoo guddi gaa ngi nuyoo si jékki-jékki yëg ne guddi gaa ngi tàggoo bëccëg gaa ngi nuyoo si ñu dëkkee ko noonu rek ñëpp bañ ganee àdduna ak léegi nii lañ ko gisee rek kon wa ayaat yi bokk na ci kéemtaanam yooyu al lu guddi wan nahaaru ak bëccëg wa shamsu ak jant wal qamaru ak weer ay kéemtaani suñu boroom lañ ay kéemtaani suñu boroom lañ xoolal jant bii bokk yi nga xam ni suñu digganteeg moom li fi nekk ci kilomètres yàlla rek ko xam ni mu soree waaye sunu borom subhaanahu teg ko ci eh, benn niveau boo xam ne nii day ni mu baaxee ci ñun noonu la ko natte la teg noonu la ko natte rek teg ko noonu mu tiime mu soree ñu noonu nga xam ne bu ñu gënoon a sori ñu loro bu ñu gënoon a jege loom tuuti tuuti ñu loro àdduna si yëpp loru mu natt ko ba fi mu war a tege fi mu war a yem mu yemale ko fa di ñu jox ci tàngoor li soxla di ñu jox ci dund li soxla di jox ci leer lañu ñu soxla subhaanallah mbokk yi xoolal maanaam loolu jëmmi loolu rek boo ciy xool loola da koy yéem waaye boo demee ba nar a yéem loola yéemal ka ca gannaaw loola ki def lool yooyu ay kéemtaan la yoo xam ne ni dees cee mën a jaare ne ah lii de ki ko def ponkal dëgg la ki def lii yaa ah, kii moom kenn mënu ko féete kaw xoolal guddi xoolal bëccëg xoolal jant muy ànd ak bëccëg xoolal weer wi te bañ bañ fi nekkee ba léegi nii lañ leen di gisee rek nii lañ leen di gisee rek nii lañ leen di gisee kon yooyu ay kéemtaan la yoo xam ne nii sunu borom subhaanahu wa taala daf ñu ko fee defal ngir ñu di ci jaare ngir jàng sunu boroom xam ko wa min maxluqaatihi bokk na ci mbindaa fanam yi assamaawaatu sabu juróom-ñaari asamaan yi asamaan juróom-ñaar mi mbaar mi ñu xam ne moo tiim xamuñu fu mu xamuñu ko xamuñu fu mu yem nii lañ koy gisee rek booy tukki moo xam ngay dox moo xam nga waru fas moo xam nga dugub oto moo xam nga dugg sax avion foo mën a dem rek asamaan si tiim la rek asamaan si tiim la rek fu mu yem kenn xamul yàllaa ko xam foo mën a dem it nii nga koy gisee rek boo laajoon ñi dox sa diggante ñi nga xam ne sa diggante digganteeg ñoom mat na fukki junniy kilomètre boo leen laajoon it lii lañ lay wax nii la ñu gisee asamaan si rek fan la yem xamuñu ko xamuñu fu mu yem kon asamawaatu sabu loolu yàlla defar ci juróom-ñaar nag juróom-ñaar yoo xam ne ni noonu lañ tiimantee rek loolu kéemtaan la de wal araduuna sabu ak suufi juróom-ñaar suuf si nga xam ne ni ñun ci lañ ne yàlla lalal ñu ko tàllalal ñu ko mu tàlli ñareet ñu di ci def suñuy soxla yépp xoolal li ñuy yan suuf ni mu diise li ñuy yan suuf ni mu diise lu waaye am rek teg ci kaw suuf ay bâtiment immeuble yoo xam ne nii ay gratte-ciel yu toll nu ne yow ab birig doom boo ko yëkkatee eh, tubaarkaal da nga yëg ne yëkkati nga dara nga tegale ci lu kenn xamul ci kaw suuf sa moroom def noonu sa moroom def noonu moroomam def noonu ñuy gas ci suuf li soxla di daw ci kawam di def ci kawam di wax ci kawam lu ne ci kawam lañ koy def lu ne ci kawam lañ koy wax suuf ne dégg rek suuf ne degg luñ ko yan mu yanu luñ suul ci biiram mu garde yàlla tàllalal ñu ko bañ ba ba bañ man cee def suñuy soxla mu tiimale ñu asamaan sii muy suñu mbaar moo xam na ni li muy yaatu yaatu nag gisagoo poto bu ko téye bi xayri taraw tarawnaha yàlla nee na moom mooy ki yëkkati asamaan te gisoo benn poto bu ko téye loolu kéemtaan la mbindaa fon lañ yoo xam ne nii nit ki da ci yéemoo jànge ci ki bind lii yu rëy yii kon asamaan juróom-ñaar suufi juróom-ñaar waman fiihinna ak yi ci nekk yi nekk ci asamaan ak yi nekk ci suuf wama baynahuma ak li ci seen diggante sax nag waxuma li asamaan làq rek waxuma li suuf làq rek waaye li ci seen diggante sax nag li ci diggante asamaan ak suuf yooyu yëpp ay mbindaafan la yoo xam ne ni yu yéeme yu nit ki mën a jaare ngir jaamu ngir xam boroomam subhaanahu wa taala wa dalilu liy tegtal ci loolu ne yii ay kéemtaan la yoo xam ne ni nit ki mën na cay jaare xam boroomam qawluhu taala mooy wax ji yàlla wax ci alquraan ne wa min ayaatihi bokk na ci kéemtaanam yi bokk na ci kaawte fi suñ boroom yi al laylu guddi wa nahaaru ak bëccëg wa shamsu ak jant wal xamaru ak weer yii yu yéeme lañ ci kéemtaani suñu boroom yi la bokk yàlla ne nag ah yii li ñuy rëy rëy bu leen leen xool di leen settantal di leen settantal ba yéem leen ba ngeen defee na ñoom ngeen war a jaamu nag far ëpp naa def jaare leen ci ngir xam ki ngeen war a jaamu jaare leen ci ngir jox ki ngeen war a jox ak xam ngeen jox ko ak xam xam leen ne yii li ñuy màgg-màgg duñu seen boroom dangeen ngeen ci jaare ngir xam seen boroom loolu tax yàlla teel a artu bi ñu tuddalee yii wa min ayaatihi leylu wannahaaru walchamsu walqamaru dañu nag laa tasjudu ah bu leen jaamu rawatina nag dem ba sujootal li chamsi jant bi bu jaamu jant bi de bu ko naw ba tax ngeen di ko jaamu nag jaamu leen ka ko bind wala lil qamari bu leen jaamu weer wi waaw bul su jant bul su jootal aw weer ak lu dul jant ak lu dul weer jaamu ka bind ñooñoo ko moom was wasjudu jaamu leen su jootal leen lillahi alladi yàlla mi nga xam ne xalaqahunna moo leen bind moo bind yooyu ngeen di yéem moo bind yooyu ngeen di naw koo fi naw rek bul ko naw mukk ba tax nga jox ko lu moomut ko naw mukk ba jox ko lu ko moomut koo fi naw xoolal ki ki ki tax nga jot ci koo kii mu yàlla joxal yàlla àq jooji mu yàlla àq jooji mu moom kon wasjudu lillahi alladi xalaqahunna in kuntumu iyaahu taabudun bu fekkente ne wér na ni yàlla mi ngeen wax ne mooy seen borom te moom rek mooy moom ngeen jaamu bu fekkee loolu yéen a ko wax de te bu fekkee wér na ah lépp luy xeetu jaamu bu leen naw lenn wala kenn ba jox ko ko moo xam loola di jant moo xam loola di weer moo xam muy leneen bu lu ngeen ko naw naw lu ngeen ko yéem yéem na ngeen xam ne du ku ñuy jaamu du lu ñuy jaamu jaamu yàlla lañ koy defal kon boo ne yàlla rek laay jaamu bul def lu koy weddi bul wax lu koy weddi loolu la suñ boroom di di wax fii wasjudu lillahi alladi xalaqahunna in kuntum iyaahu taabudun kon loolu tegtal la ni kéemtaani suñ boroom yi buñ ci jaaree danañu xam boroom bi subhaanahu wa taala wa qawluhu taala ak ba tey waxam ji muy wax moom suñ boroom ni inna rabbakumullah inna rabbakum da ngeen xam ne li wérte wóor mooy seen boroom kenn la allahu mooy yàlla kooku dongay seen boroom moo leen bind moo leen moom moo leen di saytu moo leen di wërsëgal moo yor seen lépp seeni mbir ci ci loxoom la nekk moo leen di dundal moo leen di faat bu ëllëgee bu ngeen dekkee moo leen di dekkal te ci moom ngeen di dellu lii nekkul amu ci lenn lu nekk ci loxol keneen ku dul moom kon kooku dong mooy seen boroom alladi ki nga xam ne allah mooy yàlla alladi mi nga xam ne xalaqa moo bind moom dong asamawaati moo bind asamaan yi ñu doon wax léegi wall arda moo bind suuf si asamaan ak suuf ni mu toll asamaan ak suuf ni mu toll ñu bind ko ñu defar ko nga xam ni asamaan benn asamaan dong bu fekkonte ne xel dong lañuy jëfandikoo da nga naan ci ban temps la xaj pour nit li pour ñu liggéey ko suuf si dong pour ñu defar ko ci ban temps la xaj yan jamono la mën a xaj ngir am la nit ki soxla ngir liggéey ko ñaata waxtu ñaata fan ñaata weer ñaata at la soxla ngir liggéey lu toll nii loolu bu doon benn laa wax waaye juróom-ñaari asamaan la di juróom-ñaari suuf yàlla nee na mi ngi ko liggéey fii sittati ay yaamin ci juróom-benni fan juróom benni fan donc ci la liggéey asamaan ak suuf bu ko neexoon nag bu ko neexoon ci ci fraction de seconde mu liggéey ko ci wala lu ko gën tuuti kun rek lay wax kun kun lu gàtt la kun innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun yàlla bu lim soxla bu ne ko bu ne loola nekkal rek loola ca saa sa day daal di nekk ndigal lay déglu waaye daf ñuy jàngal lii mu jël temps def ko ci daf ñuy jàngal nga xam ne nii lenn lu nekk daa am nuñ koy nuñ koy defee ak lu mu laaj organisation kon lii ni mu toll suñu borom subhaanahu wa bind ko su stawa ala yàlla nag tam yemoo nag ca fatim arasham ba muy gàngu naayam xam ni moo tiim al muy aljanna arasha ko tiim foofa mooy gàngu naa suñu boroom suñu borom yemoo fa tiim aras comme ni mu yelle ci jëmmi sunu borom subhaanahu wa taala ci anam goo xam ne nii mënuñ koo xam ñun mënuñu xam mënuñoo xam nu mu fa nekkee kon suñu boroom li wóor jaam bi war koo gëm war koo xam mooy suñu borom moom mi ngi ci kaw moom mi ngi ci kaw moo tax buñ naan yàlla mi ngi fépp déedéet yàlla xam-xamam mi ngi fépp waaye jëmmam ma nga ca kaw yàlla ma nga ca kaw ci jëmmam waaye xam-xamam peeg na lépp xam-xamam mi ngi fépp loolooy pas-pas bu wér loolu mooy pas-pas bu wér yi moo tax yàlla ci jëmmi boppam du nekk fépp foofu la nit di potoxlu ba bëgg a jël maanaam ni la yàlla loo gis yàlla la koo gis yàlla la yow mi yàlla nga xar mi yàlla la mbaam mi yàlla wax yi wax yi waxi dof dëgg dëgg dëgg mooy loolu wax ju waxi ko àndut ak xelam te ku la koy wax itam nag mi ngi fooyee sa xel mi ku koy wax mi ngi fooyee sa xel mi wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla ku la koy wax itam mi ngi tuutal yàlla tuutal gu jéggi dayoo sax na tuutal gu jéggi dayoo loolu xel nanguwu ko waxuma laaj xam-xam di ko nangu kon suñu borom subhaanahu wa taala fa mu nekk wax nañu ko te waxam jooju mooy liy dëgg sunu boroom moom yi yuxsil layla nahaara mooy jël guddi di ko muure bëccëg mooy jël bëccëg di ko muure guddi mu def na kenn ku ci nekk ci ñoom guddi ak bëccëg kenn ku ci nekk ci ñoom yatlubuhu xasiisan di mel na luy dàq moroomam dàqin wu gaaw mel na kenn ku nekk day bëgg a jot moroomam ba jële ko fi ba folli ko nga gis bëccëg ni muy toppee guddi day jékki-jékki rek jëlee ko fa mu lëndëm këriis jékki-jékki rek guddi bëccëg ñëw folli guddi nekk jël palaasam ay mbiram di dox mbir ñu xam ne ci bëccëg lañ nekk kon bëccëg ay dox lii bëccëg laaj mooy dox guddi du taxaw day continuer di topp bëccëg rek topp ko rek topp ko rek mel ni ku ko ku ko di soññ nag di gaaw ci topp googu mu koy topp ngir lan jot ko ba jëlee ko fi. dañu jékki-jékki rek guddi jot ba cëg leer googu jóge fa naaj ba jóge fa jant ba jóge fa guddi bu boobaa folli na ba bëccëg topp na ko ba jot ko ba folli ko toog moom di doxal moom di dox doxinu guddi ñun itam ñu nekk ci ku nekk ci guddi rek di dox doxinu ku nekk ci guddi loolu suñ borom subhaanahu moo ko def wa shamsa wal qamara moo bind jant bi moo bind weer wi wan nujuuma moo bind biddiw yi nga xam ne booy séen gis nga biddiw yi ngay séen am na ci yoo xam ne ñoo ëpp jant bi ñoo ëpp jant bi fuuf ni nga leen di seeni ñu tuuti am na yoo xam ne nii yaa ngi leen di séen waaye seen digganteeg seen digganteeg jant bi dong suñ digganteek jant bee ko gën a jege diggante suuf ak jant bee ko gën a jege yu yéeme yéeme yéeme yu doy waar doy waar a doy waar mbokk yi yi yàlla bind ku ciy xool di ko jàngat di ci jéem a xam da nga xam ni àdduna si benn buur la am de benn boroom la am yooyu yëpp mu bind leen mu saxaraatin muy yoo xam ne dañ leen a tàggat bi am rihi ci ndigalu suñu boroom subhaanahu wa taala suñu boroom moo leen tàggat ñuy ñuy ñuy doxe ni ñuy doxe di jariñ li ñu war a jariñ bu fekkonte ne jant bi dañ ñu koo bàyyee rek ne leen xool leen xool ne nu ngeen jëflante ak moom wala suuf si yàlla daf ñu ko jox leen fexe leen daal ba mu taxaw benn mën cee dox bu ko deful du ngeen circuler kon du sotti waaye yàllaa ñu ko tàggatal luñ mën a def ci moom mu ne dégg rek asamaan si ni bu fekkoon yàlla daf ñu ko bàyyee rek ne ñu fexe leen daal mbaar maa ngi noonu fexe leen ba téye ko wut leen lu ko téye ba mu taxaw kon duñ fi jóg dara du sotti dara du sotti dara du sotti yow mbaarum gattax dong boo ko bëggee defar euh, boo matul ñu bari dañ ci am yoon moo xam ne nii lu mu yaatu yaatu du ëpp ñeenti meetar waaye fu ne da fa dugg fu ne da nga fa génn te dañ lay jàppale itam asamaan si mbaar mu toll nii ñu mbaar ko fi te gisoo benn wenn jën wu ko téye gisoo ab gàllal gisoo leneen ah bokki sunu boroom moo tàggat yooyu tegle ci mbiram nag ci ndigalam ñuy doxe lenn lu nekk di doxe nañ ko sant muy doxe noona ba tax service bi mu war a def mu def ko njariñ li mu war a joxe mu joxe ko waaw biddiw yi nga xam ne ni ku ku nit ñi suñu borom subhanahu wa da ko def mu taaral asamaan si waaye itam nag mën a gindi nit ñi ku réer mën cee gindi ko bu fekkee xam nga ci dara moo tax yàlla ne ala lahul xalqu wal amr allahu akbar ala lahul xalq wal amr li wóor te wóor li am ba des mooy lahu yàlla dong moom yàlla dong la ñeel alxalqu bind mbindaafoon yi wal amru yor seeni mbir itam seen mbir lépp seeni mbir ak di ci soppax ndi ko nu mu ko neexe loolu yàlla dong nga ko moom keneen amu ko keneen moomu ko yàlla bind mbindaafon yi moo yor seeni mbir di ci soppax ndi ko nu mu ko neexe di jëfandikoo nu mu ko neexee tabaarakallahu yàlla màgg na yàlla kawe na tabaarakallahu yàlla màgg na bu ne yàlla barkeel na de yàlla màgg na yàlla kawe na ay yiwam bari na yàlla moomu nga xam ne rabbul aalamiina mooy boroom mbindaafon yi waaw tabaarakallahu war rabbu boroom nag buñ ko waxee huwa moom almaabudu mooy ku ñuy jaamu wa dalilu liy tegtal ci loolu qawluhu taala mooy wax ji yàlla wax ne ya ayuha nnaasu yéen nit ñi ñépp dugg ci biir ubudu jaamu leen rabbakum seen boroom alladi xalaqakum moom mi nga xam ne moo leen bind moo tax ku bind rek lañu jaamu jaamu leen seen boroom moom yi nga xam ne moo leen bind walladina min qablikum moo bind ña leen jiitu woon itam kon luñ mës a bind rek kenn ko bind muy yàlla moo leen bind yéen ñi moo bind ña leen jiitu woon ñu ñooñu mën a doon moo xam muy ñu jege moo xam muy ñu sori ñëpp yàlla leen bind waa jaamu leen seen borom yooyu laallakum tattaquuna ngeen ndax ngeen amee ci ak ragal yàlla kon jaamu yàlla lim la war a mën a jural mooy taqwallahi mooy ragal yàlla jaamu yàlla bu melee nam war a mel day jural boroom ragal yàlla seen borom moom alladi mooy ki nga xam ne jaala lakumul arda moo leen defal suuf si firaashan muy ab muy laytaay muy lal muy luñ tàllal loo xam ne nii daf leen koo lalal ab dénd bu mu leen tàllalal wa wasamaa moo leen defal asamaan si an muy mbaar mu mu leen tiimale mu tabax ko defar ko mu tiim leen wa anzala moo wàccee mina samaa ci suuf ci kaw asamaan si moo jële ci asamaan wàccee ko lan la fa wàccee maa an ndox muy taw kan moo mën a taw kan moo mën a taw xoolal buñ jékki-jékkee taw bi ne tekk rek ñépp dañ jaaxle kenn amu ci pexe kenn amu ci pexe tool njaatigee ak tool surgaa ci yam toolu buur ak toolu baadoolaa ci yam toolu baay ak toolu dooma ci yam toolu sëriñ toolu taalibee ci yam ñëpp ay jaaxle kenn amu ci pexe kenn kenn nag kenn ñaan yàlla dong allahumma moo tax kuy ñaan gis nga kuy ñaan say loxo kaw rek lay jëm parce que xam nga ni ki ci war a def dara ci kaw la nekk moo tax gis nga yàlla bu ñu daanaka bu settantalee tuuti rek mën koo xam bu settantalee tuuti rek mën koo xam même ki ngay ñaan bàyyi fi yàlla di ñaan keneen mu nekk ci sa kanam du tax nga tàllal ko say loxo naan ko yow laa yaakaar booy tàllalee say loxo it kaw lay jëm ndax ki ngay xaar mu def ci dara ci kaw la ne. loolu xamoo lu la ko defloo noonu rek la mën a deme kon yàlla mooy ki def loolu moo wàcce moo wàcce ndox mu jóge ci asamaan bi mu wàccee ndox moomu fa bi bihi mu génnee ca ndox moomu sabab mi ne samaraati lépp luy xeeti meññet mu génneel leen ko ndax lan ndox moom yi mu wàccee loolu nag dala ko da koo def rizqan lakum muy wërsëg wu leen jox wu leen yàlla wu leen ñeel wu leen yàlla jagleel xoolal eh, bu ndox waa ndo suuf si bu ñu nekkee ci nawet dañoo war a fàttaliku la ko jiitu bu ñu fàttalikoo ñetti weer yi jiitu nawet ni àll bi meloon wow koŋ xonq coy gennug ñax gu wow gu tooy gu la ko doon wërloo mën naa mën ngaa wër ba ay kilomètres doo ko gis boo suuloon pepp walla leneen lu mënti doon ci suuf si mën na faa yàgg lool waaye du sax de xoolal ñu jekki-jekki mu taw mu taw nga xëy ji saw jiwu suul ko ci suuf ñetti fan nga gis muy mbëkk di génn muy yanu di génn subhaanallah ñu jékki toog ñetti fan ñeenti fan juróom àll bi verte gannaaw ba mu woowee koŋ xonq cuy coy di ngelaw rek jékki-jékki àll bi foo sànni sa bët mu verte rafet naat ku def lii lii ku ko def ku ko def xoolal bu fekkoonte ne dañ dañoo dañ ne waa kokki seeni tool yéen koy roosal seen bopp waa dëkk sàngam seeni tool yéen koy roosal seen bopp bu ngeen ko deful du tooy xanaa ñun ñëpp dañuy bokk benn tool xanaa ñun ñëpp xanaa dañu bokk benn tool yow li nga man rek muy bay tool bi rek yàlla bàyyee la ko loolu rek daf laa xaw a të ji ko bay ko rek xaw na laa të buñ ci boole woon ne la nag yaa koy tooyal moo tax li nga mënut muy xéewalug wàcce ndox gàncax sax loola suñu borom subhaanahu wa taala moo la ko defal nga dem ci kanam tuuti pepp yu ndaw ya nga yóbbu woon ci àll ba suul ko fa mu jékki-jékki wenn pepp wu ci nekk génneel la ci meññet loo xam ne nii boo koy delloo si ci kër gi ay charge lay doon ay charette charette ngay ji ngay ngay ngay indi charge yu bari wala ay camion yu bari léeg nga jëfandiku ci ba yóbbu di jaayi feneen te tuuti nga yóbbu woon xool wërsëg wu noonu ku la ko defal suñu borom subhaanahu wa kon nag fala tajaalu lillahi bu leen wuutal yàlla mukk an daadan ay ndend ay moroom yàlla du moroom boroom la yàlla du moroom boroom la bu leen wuutal yàlla mukk an daadan ay ndend ay moroom yu ngeen koy dendaleel du moroomu kenn wa antum taalamuuna ngeen di ko def ba noppi xam ne lii yàlla mii ngeen di wutal ndend amul ndend lu leen ci xiir lu leen ci xiir nit day jëfandikoo xelam te déglu liñ koy wax te dégg liñ koy wax mu di ko jëfe bu koy def yàlla nee na nii laa mel yàlla nee na man maay kii waaw nangul loola nangul ko ko waaye bu ko bàyyi mukk di jëfe leneen wala ngay defe neneen wa qaala ibnu kasir ibnu kasir mooy borom xam-xam bu mag boobu nga xam ne ni ñi gën a siiw ci tafsir alquranul karim ci la bokk rahimahullahu taala yàlla na ko yàlla yërëm ibnu kasir dafa ne alxaaliqu ki bind li haadihi l ashiyaa mbir yi ñu fi lim yépp ki ko bind huwa moom dong dong dong al mooy ki yelloo mooy ki yeyoo al lil ibaadati ak jaamu moom dong yelloo ak jaamu nag ki bind lii moom mbir yi ñu fi ki ko bind di ko doxale nii kooku dong mooy yelloo ak jaamu waaw ku bëgg ku bëgg ñu jaamu la nag mën ngaa defal ne moom mu bindee ña nga ya nga la nga bind jaamu la moom boo bindee moom sañ ngaa bind la nga bind moom sañ nga ne ko jaamu ma képp koo bind sañ nga ne ko jaamu ma moom wax dëgg yàlla waaye daal yàllaa bind man yàllaa ma bind nun ñëpp yàllaa nu bind lii nu gis yàllaa ko bind dañu daal di xam ne kon yàlla moom ii moo ak jaamu lépp lu mënti doon mooy ki ko bind kon luy xeetu jaamu moom dong mooy ki ko yeyoo kon euh, sunu bindu tey foofu lañ koy taxawal incha allahu taala di ñaan yàlla mu defal nu tawfiq defal nu pas-pas bu wér bu sell hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh la la yónni ca daara ja ngir nga am ndam sama dam yow na nga am yar ngalaay bul tas yaakaar sama doom dama la yónni ca école ba pour am ndam sama dam yow na nga am yar ngalaay bul tas yaakaar dormi cay kolba nanga raw ca kalas ba ñanga warmal jàngalekat ya ngalawaay bul tas yaakaar